Buzz Sénégal Actu dal leen ak jàmm ci xibaar yi nag dañ koy doxee ak mbirum Ousmane Sonko ba tey rek lan koy doxee ak turam bi nga xam si nag sénégalais yu baree bare rek ñoo ngi toog rek di ko xaar ba xam nag ana fan lay mujjee ginnaaw nag conseil constitutionnel daal demee rek wax ne day génnee li nga xam mooy list definitive bi nga xam si ne nag ñoo war a bokk ci eh, élection présidentielle 2024 moom mii di conseil constitutionnel nag ñu ko ci xaar bu baax a baax di xaar nag candidature bu Ousmane Sonko nag xam ngeen ne moom mi nga xam moo di Ousmane Sonko nag candidature am nag sénégalais yi ci baree bari ñoo ngi koy xaar mooy Bassirou Diomaye Faye ak Cheikh Tidiane Dièye ak yaa moo di Habib Sy xam ngeen baax baax Ousmane Sonko ñoom ñëpp rek buñ demee da naan ci ñoom ñëpp rek ci euh, la ñu dem ndax xam ngeen ne moom ñii di Ousmane euh, Sonko euh, nag de moo ci kaso bi ba tey ba pare nag candidature am isaan yi du ñuy gën di dem nag muy gën rek di tàq suuf rek leeragul benn yoon mais daal ñu ngi ciy xaar bu baax a a baax nouvelle bu neex a neex neex pour rek Ousmane Sonko mën a bokk ci élection présidentielle benn carte incha allah delloo way di abonné di like vidéo